voudrais juste une chose. et nous avons tous entendu la partie plaignante déclarer qu'elle était après cette confrontation des preuves allait sortir. Malheureusement, ce qu'on a vu, ce qu'on a constaté, c'est une partie plaignante qui s'est mue dans une stratégie de silence absolu. Juste rappeler que cette posture ne peut pas être la résultante de la posture de l'inculpé. Les deux parties n'ont pas la même attitude. Les accusations ne sont pas les mêmes, les postures ne sont pas les mêmes. Donc nous prenons l'opinion publique, nationale comme internationale, à témoin que ces personnes qui s'activaient, qui déclaraient partout qu'au jour de la confrontation, les les preuves allaient fuser, aucune preuve n'a été sortie aucune preuve. aucune preuve, n'a été sortie. Au contraire, hormis la stratégie de silence qu'elle a gardée à la question ou aux questions qui ont été posées par les avocats de Ousmane Sonko, du président Ousmane Sonko, c'est un lot de contradictions qu'on a décelé dans ces, dans ces propos. Donc, ah, ah, ah, on nous a annoncé qu'il y a eu 30 euh, minutes pour euh, suspendre donc l'instance. Qu'est-ce qui s'est passé Non, il n'y avait, pas un instant. le PV, préliminaire. C'était juste une. a oublié le PV préliminaire. Est-ce que vous Non, non, il n'y avait pas un incident. Il n'y avait pas cet oubli dont vous faites allusion. C'était juste une panne qui a justifié cette pause. C'était juste ça. donc nous avons voir. si confrontation bi nga xam ne tey jii ñu

mooy preuve yooyu ñuy wax gisuñu si benn benn preuve nag génnul benn preuve amul vidéo amul audio amul len au contraire li ñu gis moom mu adapté tey mooy dafa ñëw indi silence te ñun ñu jàpp ne ki mel yelloo pour def mooy ki nga xam ne dafa am présomption d'innocence ndax yoon na ko may mu def loolu waaye ki nga xam ne dafa ñëw war a indi accusation te doon déclaré ne bés bu lii amee mu indi preuve dafa ñëw garder silence. maa ngi dégg si Adji Sarr ne mu ne seen candidat seen seen euh, client bi nangul wax. nangul moom moom laa expliqué. Ah. cest à nangul wax boobu dafa am lu ko indi. ndax si njël benn dafa ne ki nga xam ne dafa jël accusation teg si kawam ñu jàpp sax ne lii ak lii moo ko waral kooku du ko mën a tontu. mu ne tamit ki nga xam ne lii ak lii ak lii moo indi. démarche bi du ko tontu donc tey jii silence suñu client dafa am mbëbët dafa am stratégie bo xamné moko moo waye nak dama jàpp ne ki nga xamné mo né mom moy parti bi top indi ay tuuma bu paré né won dina am ay preuve yu mu génne tey jii génnewul preuve silence la indi yelu waxuma sa waxu silence mais ay contradiction yu dul jeex lay d'accord léegi bi ngeen paree juge bi lan la mujjee wax moom non di ci suñu mën mujjé wax loolu yaakaar naa bi loolu lu ñuy génnee fii mhm. li ñu mën a jàpp daal mooy li ñu waxoon si njëlbeen ba tey par rapport ak suñu stratégie par rapport ak li ñuy xaar si dossier bi tey lañu gën a ne am am qualité tey la ñu gën a nekk à l'aise te li ñu njott ñun bu dee daal droit rek la ñu wax dossier bi noonu la yam yaakaar nga ñu dem procès wala non mooy li may wax mhm. xam nga décision boobu juge bee koy jël te nag loolu souveraineté tam la ñu nangul ko ko waaye dañ ne ñun ay juriste lañ lii ñu gis si dossier bi te mu nga xam ne amul benn preuve bu ko lal au contraire sax

preuve yi ñu wax ni am nañ ko vidéo yi ben génnul dossier bi non lié la war altercation jotul am ci biir non non altercation altercation audience bi déroulé na normalement amuloon ben incident jërëjëf maître Ousseynou Ba maître Ousseynou Ba voilà amé na internet mu nekkoon maître voilà